man de bu doon man kese man bu ma juddoo ba léegi mosuma ubbi live Bougane donc bu ñëpp meloon ni man mais nag ñëpp mun nañu mel ni man ñëpp amuñu conscience collective boobu noonu ñëpp amuñu degré xel boobu pour mun a di multiplier di li li di bàyyi dara mooy système boycott muy système bu am doole malheureusement ñëpp mënuñu ko Bougane moom mi ngi ci monde di buzz maa am buzz maa am buzz nga multiplier ko par zéro mais malheureusement sénégalais nak dañ nu kumpa benn xétu dañ kumpa boo xam ni c'est dommage lu fi jaay du lamb lu jaay lu jaayu Sénégal du lamb Sénégal rek mo dëkk bo xamni lepp day jar lepp lepp suuf sax day jar suuf tëb nga tibb suuf si serigne diw mom moko ki mo moo tufli ñaan ci ya ah, jënd leen ci suuf si serigne bi nga gis gaay di mëq di mëq suuf ci jaay ma 100 jaay ma 200 cent suuf sax day jaay senegal <laughs> donc ku xol rew mi xam ni rew mi lo fi lambale moy am nga am nga problème bop dé rew mi lepp ay jaar lepp dama ne suuf sax day jaar suuf bo tibbon suuf tay ni suufu sëñ bi la gars yi mëqal la ko billaay di rang di ko jox boo nee noonu tuflit bi sax ne tuflit bi tuflitu sëñ bi la gars yi fay la dañ koy jaay ji gars yi mar tuflit bi boo noonu xeer bi ne xeer bi sëñ bi ci la doon toog wallaahi gars yi rang nga ne ku toog sans ku toog sans gars yi ñëw saa di toog di toog di toog di jóg di dem ba léegi yow toog bi lan la la jox mënuñu la ko wax tous kon réew mi sincèrement ne gars yi bàyyi leen caaxaan bi day jafe structuration bi la nuñ ko structuré dafa nekk réew moo xam ne caaxaan kese kese la xam xamul leneen caaxaan kese lépp caaxaan la fanatisme euh, émotionnel lépp caaxaan réew mi lañ ko lañ configuré ci caaxaan réew mi caaxaan la gën a xam caaxaan la gën a aimé caaxaan lay gën a déglu boo leen nee rapport intéressé wu leen wax na yàgg naa leen ko wax il faut nga ne leen rapport sexuel mu intéressé leen ñoom ñëpp jóg faraax seen nopp yi ne envoyé ma ko inbox ma ko rapport dañ lay laaj ban la rapport yi génn ñu ne la ban la nga leen rapport financier ñu ne gat saramara rapport rapport fisco gat saramara rapport sexuel ñu indi yónnee ma ko dégg naa toj na toj mu rajo kan moo ko lal kan moo ko ñam yónnee ma ko inbox ma ko foofu la Sénégal tollu rapport ñoom sexuel bi mo leen ci intéressé ñom bu amul bu amul radical sexuel bi intéressé wu leen bu financier bi da leen di rombu bu ko lire paresse intellectuelle lañ yor bu rapport foncier bi la intéressé wu leen ken du leen partagé ma bu dé rapport fiscaux yi la ñi yoreel euh, euh, problème fiscalité intéressé wu leen bu sexuel mais ça waay de c'est des centaines de milliers de vues c'est des millions de vies en une minute. Boum, boum, boum, partage, pata <laughs> ku nekk di ah 400 milliards eh, gars dañuy filmer rek ñoo la conscience historique Dang motif koy def motif motif. une koy conscience historique lay def tant que nous motif intéressé wu leen foofu le Sénégal un rapport sexuel lañ ci xam délinquant sexuel lañ ci xam délinquant foncier ñu ah saram a un délinquant ko dox ci xasse yi ah il ci a un délinquant foncier ah, suufu jàmbur la jël noqale ko ci kaso yi noq fi ne waaw wuy ma délinquant fiscal ci kaso ah fayul tëb eh, na def fay impôt waay noq ah, la léegi fu fu ko ñam fu ko laal foofu loolu ñëpp xam na li loolu mooy réalité bi réew mi foofu la tollu gars yi délinquant sexuel bi moo leen gën a amal importance que délinquant foncier bi délinquant fiscal bi wala délinquant euh, financier bi boobu leen toll léegi nag booy réew maa ngi noonu ñii ñoo sàcc seen xaalis dinañ def lu ñu mën pour jàpp leen dugal leen ci kaso yi fii ak semaine prochaine dinañ commencé dem di wuy par dix par dix dix dix dix dix des comptes yi déclenché nañ ko léegi nag <laughs> ñi ngi ñëw de am na ñoo xam ni balaa balaa ñoo ñëw élection yi dina ñëw dinañ xam ba xam yéen li metti na leen di dégg ngeen wax nañ Amadou Ba wax nañ Moustapha Ba ñi ñëpp parce que ñoo yoroon finance bi wax nañ gars yi ñu yoroon budget et cetera et cetera waaye léegi ñooñ dañoo bëgg a ñëw seen euh, du Amadou Ba dina ñëw seen dëkk dinañ xam ba xam metti na leen wala mettiwu leen fan foofu laay xamee ba xam yéen li ngeen di wax dëgg la ci yéen Amadou Ba daan na yow seen dëkk yi ba xam nangeen ngeen na ngeen koy teeroo <laughs> billaay bés boo gisee Amadou Ba dugg xeer yi di tëmb deew kaña bum bum bum oto yi di ñuy ka kayaase oto mi bëg bëg bëg dóor waaye dama ne yéey sénégalais sont conscients c'est fini pour Amadou Ba Amadou Ba ñëw na kaw la gars gars yi kaayaase oto bi taal oto bi booy di fippu di taal nan ki dafa sàcc sañu milliards di taal oto yi di daxe gars di dóor teew kañe di toj di <laughs> là je dirais félicitations oh, oh, oh mon pays s'est révolté pap nag léegi conscience bi wala euh, conscience bi kawe na bu koo xam ni euh, Euh, directeur Koudouba euh, Cheikh Cheikh ñebbe bo len gis nga xamni ni nañ ko ci ay milliards mu ñew ci dekk naan may lañ ni député wa dekk ba màbb genn fekk ko fofu di ko tembali xaar di dàqe ba muy taw ñu lako ko criminel criminel criminel financier di ko dori brick di ko sanni di toj oto yeeg yooyu je dirais mais ko yee peuple bi yawna kon ñi xam nañ ñi sacc parce que yeen man xam lu jaaxal ci yeen <laughs> bo leen takkoon xar ca mi bu takkoon xar dem rayante am desa milam, am ñu ne suba la tabaski mu tak xaram ab sacc di yor dag buum bi bu ga genn mu gis ko dana way sajay sajay sajay sajay ah, mbuk mi ra ñu japp sacc bi gaa ne luñ ko def na tal. leen ko tal leen ko ray leen ko daggate leen ko bo ne sacc bi bo dafa na nañ koy sotti essence tal deux cent mille xar kese deux cent dana bi rek day yuuxu ba ba butit saja, tag ah corde vocale lan tëf koñ bi di màbb bëgg bëgg bëgg lu xar bu ñaata bu kan bu ko ak ak jabaram ñaari dom ñu ñu ne nañ ko taal ñu ko taal ñu ne benn sàcc sàcc nag milliards huit cent milliards ñëw cib koñ fekk Ndiaga Thiam bu toog ak njabootam salaamaaleykum waaw ñu ne kii kan la Amadou Ba man la Amadou Ba jàppale leen ma ngeen fatal ma ñoom ñu bàyyi ko noonu <laughs> ñu ko wër ah Amadou Amadou kii la <laughs> nga xam ni kon réew moom am na problème sàcc bu sàcc deux cent mille benn xar bu deux cent mille ngeen pare pour rey ko sàcc bu sàcc seen milliards ñëw cib koñ di wax ak yéen ji di jaabante nu mu ko neexee vous avez problème problèmes de priorité boo mënee rey sàcc bu sàcc sa xar xawma lan nga fi bàyyeeku sàcc sa milliard te yow xar yow kese yaa ko moom kii milliard askanu lëmb la sàcc mun na ñëw foofu di wax di dox di ànd ak gàngooram te dara fekk ko ci loolu yaa problème kon nag fii lañuy xamee ba xam li ngeen di wax nii lamentation yi dëgg la ci yéen

yaa quatre cent milliards caisse noire bi buñ dóor lii vrac lii dañ ko dajalee nii après dinañ leen yebbil affaire yi benn par benn ngeen gis léegi nag gaa yi ñoom ñi ngi ñëw ci yéen on verra ba pare yor ay dossiers yu erroné di dem di ko yóbbu ay FMI di fenn di lépp mais ay bande lañu woon quoi mais dina leer léegi nag gars yi dañoo xaw a yàkkamti reddition des comptes tàmbalewul ñiñ fi jàpp ay dénonciation là. ok ñu intouchable sax légui ñi commencé daanu mais état bi toppagu leen déglu leen Doro gay moi am problème bo xamni ni nit moko jox pour mu jaay ko ay terrain aéroport mu dem vidéo ko yor naa vidéo bi sax vidéo dem foofu vidéo soob saale yor xam nga nangam nangam indil ko affaire yi ne ko nangam jox ko ay faux kayit kooku tamit am ku ko porté plainte parce que kooku moomu loon sax xaalis bi Zakirullah Sow Zakirullah Sow moo dem ci ki nga xam ne mooy dooro ñoom ñëpp nag ñoom ñoo doon ay gaañ lañaa ah, ñoom ñoo ne ay Marème Faye di ànd ak ñoom Zaqulullah saw ak Macky Sall dañ ànd nañ fi dem ay Dubaay dem fi ay Makka dem taxawaal nañ fu ne ay association de malfaiteurs la ay nit lay yeewu nii rek dem commencé wut ay link ba gisante toog ak gars yi nag nekk fa donc ñoom ñëpp xamante nañ Zaqulullah Khadim Ba Doro Gaye euh, euh, Abdoulaye Sylla Ecotra et cetera et te ñi ma lay wax yëpp kenn ci ñoom mënu la génneel befam bëfam. kenn di ci ñoom mënu la tagal bëfam à part Khadim Ba bi nga xam ne ñëw na jàngi si fii Canada donc gars yi def ay association de malfaiteurs mais du gouvernement moo ko jàpp parce que Sonko ñoom jàppaguñ kenn jàppaguñ kenn pour vous dire vrai reddition des comptes commencé gul jël nañ dossier yi jébbal mais commencé gul moo tax kuñ kii kii rek loolu ay problème personnel la donc Zakaria Sow moo porté moo euh, Ablaye Sylla Ecotra mo soxla won ay terrain Zakaria ne nako mun nako ko wutal dem ci Doro Doro dem dor dóor Zakaria Zakaria Sow ci bopam momit am pression wu Ablaye Sylla Ecotra mu daw dem ci Doro nako jox ma xaalis bi parce que Ablaye Sylla daf may porté plainte parce que nak Ablaye Sylla da ko porté woon plainte donc 5 milliards ay terrain donc mu daw dor pression. Euh, euh, kii dooro dooro tamit kii après dooro daanu donc dooro bu mu daanoo du nguur gi Zakirou Lula Sow moo ko porté plainte parce que moom tamit dafa am porté plainte parce que dafa jël cinq milliards yu Ablaye Sylla Ablaye Sylla tam waxoon nañ leen ko nee na leen Ablaye jàngul ci ñoom Marème Faye la doon nekk ak ñoom euh, famille njaboot googu noonu la doon ne même Ecotra bi da ko sàcc entreprise bu jàmbur la mu dem sàcc ci ko tur bi commencé dóor dóor dugal génn yóbbu xaalis indi nangam noonu la amee bu dóor ay milliards Macky Sall bu ko jàpp mu daw dem Amérique moo tax ñuy wax naan or bi bu muy génn boobu mi ngi Amérique dafa dawoon dem dugal réfugié dem toog Amérique lijjanti moo ko fi indi moo ko indiwaat Sénégal gi mu yor ay milliards am yu mu dóoroon paqueté ko moom la indi di financé gauche droite ku ne mu jox fu ne mu dugal fa donc. kon bu ñu jàppee Doro kooku nguur nekk yoonam new ci bu dee dafa lijjantee gaa yi mun na génn loolu moo ko génne ok ñu dem.